jóg leen taxaw jóg nuy sant Seyxi Fàllilu jóg leen taxaw nuy sant Seyxi Fàllilu guddeeg bëccëg ñu jublu Seyxi Fàllilu yaaro ci mboolem lawlu yow Fàllilu yaay Mustafa yaay Muntaxal yaay wàlliyu géejug mbindeef yi ay gi neex na Mbàkke Cheikh fam nga jumaa ji xàll yoonu mbàkke sengul daagul dugal tërixulaay alaaji fàllo ba tey ñu ngi ci ziar yu tedd yu am solo yi xam ngeen ne ñoo ngi fii ci kër Serigne Ahmadou Badiou Mbacke moom Serigne Fallou bi ñu ñëwee nag fekk nañ fi seex ab Abdou Mbacke moom Serigne euh, Cheikh Khady Mbacke moom borom daaru moxti ñu fekk ko fi muy dox tànki mbokk ak tànki wëllëre ñu dégg ko sunu micro ma fàttewul Bichri xam ngeen ni moom saa su ne ni ma koy waxee rek fépp foo xam ni ñun dem nañ fa daje fa ak daaru daanaka dafay mel ni daal dinañ dem sunu àjjana ndax sunu yaakaar jëpp mi nga aju ci borom daaru moxtu ñu fekk fi Serigne Cheikh Abdou Mbacke eh, moom Serigne Cheikh Khady Mbacke moom borom daaru ñu tàllal ko sunu ko rek mu wax nu kóllëre gi nga xam ne séq na ko Serigne ba Badiou waaye diggante maam Thierno Birahim ak Serigne Fallou Mbacke asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu eh, waa Bichri TV ñu ngi leen di nuyu lu bari di leen siyaare bu baax eh, di bu baax ci fii ngeen ñu fekk itam ci kër suñu Ahmadou Badiou moom Serigne Fallou Eh, yàlla dogal na Kazu Rajab gu ni fii la ñuy yandu man ak sama xarit yu bëree bëri muy imam Lamine Dramé bu 2STV eh, Mouhamadou Lamine Sarr Oustaz Mbacke Sylla Oustaz Assane Seck Lamine Diop Souleymane Diouf ñun ñëpp soo ba léegi ñu ngi fi yandu ak sëñ eh, Ahmadou Badawi ngir kóllëre goo xam ne am nañ ko ak moom ak woyof gu woyof teew nag njabootu suñ Fall gépp dañ leen wër siyaare leen ndokkee leen ci bis bi ndax bisu suñ Fall day bisu yoon murid yëpp waaye na fii nag mooy sunu dal fi la ñuy yandu ànd ak bis bi suñu Ahmadou Badawi di ko ñaanal bu baax yàlla yàggal ko fi nii ngeen ñu fekkee tamit sooba léegi nii lañ fi nekk nit ñi ñëw di ko siyaare ngir woyofam ak yëggum am ni yëg nit ñi moo tax bis bi tam bu ñëwee kenn ku ne yéen a gis ni imaam Cheikh Awa Balla Gaye nii taxaw ñun ñëpp at mu jot ñoo fi bokk di fi yandu eh, di ko ñaanal rek ñu yàgg fee ñëw yàgg ko fee fekk te yàlla taxaw ko baax te sàmm ko yéen ñu ngi leen di gërëm bu baax seen taxawaay rafet na lool ndax fépp fu ñu wooteel diine tam saa ñu fa demee eh, daje fa ak yéen ñu ngi leen sant baax di leen gërëm bu baax a baax ci bis bi di bis bu màgg tey ñaan sunu boroom mu fekke loonu ko at yu bari gën na noo bég nag bi nu ñëwee ci barab bii nu toog di barabu Cheikh Ahmadul Badawi moom seex Mouhamadul Fadil fekk fi ay bokkam fekk fi ay xaritam Serigne Abdou mi toog di setu borom daaru ak xaritam yi yëpp ñu fekk leen fi loolu neex nanu lool ndax won nañu ni mu ngi toppatoo mbaax mi ngi toppatoo it ñu baax te Serigne Touba dafa bindoon ni wa kullu qarinin bil muqaaran yaqtadi nit ku ne kamu mu bokk rek lay àndal kon bu nu ñëwee fekk fi borom xam-xam yeeg dëkkandoo yi ci kër si Amadou wi dañuy xam ne ma nga ca yoon wa kon yal na loolu yàgg. li nga laaj nag diggante maam Thierno Ibra Fati radiyallahu taala anhu ak Cheikh Mouhamadul Fadil da diggante bu sori ndax diggante doom la ak waajuram diggante sëriñ ak taalibeem ndax Cheikh Mouhamadul Fadil di njabootu sëriñ tuuba gu bëgg sëriñ Touba sëriñ Touba li ko yàlla jagleel. mooy ñi mu askanoo ñu di bokk ñoo ko gën a bëgg ku dul ñoom te boroom daalu nag da caa raw ndax da caa jëkk ba noppi mujj ca ndax sëriñ Touba moo tudd ni lam yu xaalif nii fii sixarihi wala fii kibarihi mosta wuuteeg man ba muy ndaw ak bi muy mag kon wane na ne àndandoo bi yàgg na ndax àndandoo gu tàmbalee ci ndaw ba doon mag loolu yàgg na te loolu yëpp ak wuute mësu ci am ngërëm mëneesut a sàkku ci nit ngërëm lu weesu loolu bu dul loolu sax histoire dafa am lu mu joxe moo di ku demee ni Serigne Touba jóge fii ci réew mii ci lu dul sagoom ay noonam yóbbu ko mu metti ko lool dem na ba wax ko yaa jumlatan xasal lado bi dalalihim man lam yakun waladun lahu aw walidu axrajtumuni naatiqiina bi annani abdul ilahi wa annani la mujaahidu wa maqaalukum inni ujaahidu saadiqun inni li waj illaahi jalla ujaahidu inni ujaahidu bil ulumi wa bit tuqa abdan qadiman wal muhayminu shaahidu génne ngeen ma ngir ni damay jihaad wax ngeen dëgg damay jihaad waaye damay jihaad bil ilmi xam-xam rek laay jihaade taxawal xam-xam te yàlla wuy su ko ca léegi kër sëriñ Maam Moor jàngalekat bu mag boobu dañ doon waxtaanee sëriñ bi li ko yàlla jagleel ci wàllu xam-xam ba dëkkam bii bokk na ci kiis yu mag yi kiis mooy lan mag ñi bu njëkk booy jàng dañ lay bindal kiis pour nga mën a jàng pour nga gaaw a mokkal mais Serigne Touba dëkk bi mooy kiis li fiy mokkal Qur'an li fiy mokkal Alqur'an du ko mokkal ci benn dëkk ci dëkk bii ngay gis famille bu ñëpp mokkal Qur'an ba ngeen xëyee di siyaareeg léegi siyaare leen fi ku mokkalul Alqur'an loolu ci li yéeme la bokk bariwul fu mu am ci àddina kon lay wane ni am na keneen ku ko joxe te. dafa am benn borom xam-xam bu seede loolu bu Daawud Boucher al imam al akbar ca Mauritanie dafa mas a waxtaan ak benn njabootu Serigne Touba ci wàllu alquran nu mu fi demee mu ni ko ña ngi koy mokkal ñoo ngi koy bind ansaari xëy mu ni mbaa jàppewu leen ko seenu njàmbaar ñu ni ko ah kay mu ni déedéet Serigne Touba leen ko jox Serigne Touba ko fi def ba tax gaa yi gaaw a mokkal. xam-xam it buñ ci duggee noonu lay mel boo xoolan xele yi nekk ci réew mi ñu toll ci dal alquran tey ñuy sadd ay béyit la muy wone am na keneen ku ci jàpp Cheikh Mouhamad Fadil mii te ñu ubbi loola la bokk ndax bi bi sëriñ bi jóge dem ci géej gi di leen bàyyeeg maam Thierno Ibra Fati booba jamono sëñ Fallou laa dégg mu wax ni sóoratu Yaasin la toll kon soreegul ci alquran ba mu jógee ci géej gi juróom-ñaari at la def ak lu tofal bi mu dikkee Cheikh Mouhamadul Fadil gàttandoo wu ko kaamilu Qur'an weesu nañu foofu waaye ay béyit la ko gàttandoo ni ko yaa ayuha sayqu nafiisul murtaja yaa faati an maa qablu kaana murtaja biotu bu no watiya bil irada lakum li kay oxsaabi xarqi aada min baadi mastaraytumuha minni adaytuha lakum bi xayri manni yooyu arab bu ne waxu ko loolu la Cheikh Mamadou Fadil gàttandoo mu tedd wa kon wane ni kon ñoom def nañ ci moom dara loolo nag mu jël ñooñu ñëpp moom Serigne tuubaa am ku mu wóolu ki mu wóolu mooy Thierno Birahim ni ko njaboot gaangoog dénk ko ay tool dénk ko xotti saaku dénk ko ay magasin nit la ko dénk te nit a gën a jafe waxuma laa nit ki mu fonk mu nangu koo yor nangoo wone ne maa fi nekkal Serigne Touba jamono dox na ba histoire di nu won ni Ceerno jàmbaar la woon yàggul dara damay wax ay di leen tooñ ci benn cérémonie bu am ci politiciens yi euh, foofa dañ doon tagg booba ci fi nekkal réew mi jaadul na bu la nit ki defaree nga tagg ko waaye booba it ci fi jikkoon a nekk réew mi def ko lu ëppoon loola te ñi mawuñ koo tudd man leen ceernooy jàmbaar ceerno mi nga xam ne tubaab bi la jàkkaar lool ñu jële fi sëñ Bamba mitital ko mu ñimee taxaw ne maa ko fi nekkal tey gaa yi ñi mawuñoo tudd gaa yi fi nekkoon bu njëkk ci ñu lewet ñii ñii nga xam ne duñu la jam duñu la tëj duñu la rey as comp rek a tax nga ragal leen a tudd ki fi nekkoon démb gaa yi ragal nañu ne xanaa waaye sëñ Bamba moo am waaju ñeme ju ñu woy Ceerno Birahim moom moo taxaw tubaab yi ni leen ci ngeen fi jëlee man mii maa ko fi nekkal man mii maa ko fi nekkal maa yore njabootam maay dundal njabootam maay jàngal njabootam kooku làqutuwul dawul responsabilité loolu mooy liggéey bi moo tax Cheikh Mahamadul Fadil mii ba mu koy siyaaree def ko ni <coughs> man tey de ataytu ilal mi'taa yi fii daari il mu'ti li yuskiya shakwal rabdi min niya bil basti maa ngi ñëw ci joxekat bu mag bu ñu wooyee Thierno Ibra Faty ngir tàllalu banku gi nekkoon ci man mu defal ma ko ak tàllalu ak si naa nag kookee nag kon loola boobu relation relation mënu ko ëpp relation bokk la relation xam-xam la te Serigne Touba li ko yàlla defal ciy bokkam defalu ko kenn koo bokkal ndey ak baay wala nga bokk moom baay mu am xam-xam ni yow sëñ Touba lu ñuy lu muy rawee ay bokkam ak jagle lay doon waaye du lu ñu yër ci téere téere bu mu jàng jàng nañ ko bàyyiwuñu benn téere lépp lañu jàng Ceerno Birahim jàng lépp Maam Mor Jaara jàng lépp ba di leen ko jàngal keneen noonu keneen noonu ba mu àgg ba ci ki ci gën a ndawe di Seex Coro mooy as shaairul balad ki dàqoon a woy ci nit ñi kon ñooñu moom xam-xam waxuñu ko fa ñu jógee itam ci askan ku ci ne ci gërëm bi këru sëriñ nga jógee kon nit ñu baax juddu lañu nit ñu am xam lañu nit ñu jàmbaare lañu jël loolu yëpp sànni ko ni ko Bamba yow rek la ñu yaakaar kenn ku ko sa sa mag ma sa def wala sa rakk mas la koo def amul ci xeetu àddina bii kon waa kër sëñ Touba ay bokkam ñoo baax ay bokkam ñoo gëm sëriñ Touba loolu mooy wane njàmbaaru sëñ Touba ak jagleeg sëñ Touba yal na yàlla taas ci barkeem te sëñ Ahmadou Badawi yàlla yàggal ko fi lool bokkam yi ñu fekk itam ñu yàgg fi lool ñu di leen fi fekk di leen fekk di leen fekkaat ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yàlla nangu nu lépp kasu rajab gi nga xam ne moom la ñu teewe muy bis bi julli wàccoon falaa xarwa bu sëñ Fallou tabaxee jumaa moom mi maase bokk julli benn bis buñ fi gane woo war nañoo doon ay xarit moo tax mu tabaxal ko néeg bu réy bii defal ko sëriñ Touba addiya ni ko kamaa xat kunte kere ba mu àggee dafa bind xalimaam kamaa xat kunte taamulu ya xadima bihi unnixta fii daari naimi fa kun fii nicmatin abadan muqiima muaafan murtada sayxal qadimi ndokkeel naa la yow Serigne Touba sa liggéey bi àgg na kon liggéeyal na ko delluwaat ca maam Mor Diarra mais nga xam ne mooy itam jàngal na ko nee na moo ma jàngal tawhid moo ma jàngal tafsiru Qur'an kon sama sëriñ la dinaa ko jox addiya dem tabaxal ko jàkka ju rëy ca Mbàkke Bawol ci jamono yooya. kon liggéeyal na ay magam liggéeyal na ay baayam liggéeyal na ñëpp kon suñ fallu lu mu am daf ko war a am waxoon na ni maag Cheikh Moustapha sama mag ju baax ji li nu am ci Serigne bu nu woon ca wit ne wit am ko. ndax lu ko gaa yi di def gaa yi defal defal nan ko ko bindal nan koy kaamil bayal nan ko woy nan ko def nanu li ñëpp yi def kon faw nu am li ñëpp yi am jërë ngeen